gis nga yeewi bi jàllal feneen. gis nga gis nga seen fit bi. du dem fenn dafa nar waxuma du dem fenn de. loolu nga wax. dama na désagrégé y a de fortes chances. désagrégé xanaa dafa am ku la yónni. Macky ci biir wala ku koo xam ne yónni nañ du leen ci bàyyi. benn mais avant avant d'en venir. xam nga yeewi non xaaral xaaral avant d'en venir xam nga yeewi askan bi. li def le succès de yeewi li def le succès de yeewi askan bi c'est que yeewi askan dafa amoon des locomotives politiques puissantes. Eh, taxaw pur eh, Pastef après ñeneen ñëpp indi seen seen seen seen seen seen seen doole et mu am leader yëpp taxaw bokk bokk don yow bokk eh, un vœu commun ne da ngeen di imposer à Macky Sall la cohabitation et puis da ngeen koy jox un navant goût pour que mu bañ a tenter être tenté par le troisième mandat mais Yewwi aujourd'hui c'est clinquant clinquant gars yi ñu ngi jéem a Habib mu ngi jéema a euh, voilà te ñu ngi jéem mais c'est difficile pour ah, c'est très difficile c'est très difficile pour alors ngeen ñëw ngeen tegaat ngeen teg fit ngeen teg fit ngeen ne da ngeen bëgg élection inclusive dangeen bëgg élection transparente mais trente trente une trentaine ngeen peut peut-être di ngeen nekk une cinquantaine peut-être que di ngeen yegg euh, soixante mais xam nga tare congénital bi mooy euh, ma ndax yéen ñëpp vous êtes animés par la sincèrement animé laa wax par la même dynamique. Ah non, ça, et par la même ambition loolu nag madame. man man dut dut yooyu laa am. loolu loolu sa dutu bopp la. waaw ah. ah, euh, sa dutu yooyu mën nga ko garder. non bàyyil ma partager ko rek. ñun amuñu dut hmm. ñun ay kilifa la ñu magum jëm ñu décider gis ne élection yi dafa am problème mu inclusivité du question Ousmane Sonko seulement de. inclusivité bi kan la concerné. y a des gens kan lañ fi. kan la fi candidature y a des qui sont des prisonniers qui font partie du corps électoral et qui sont arrêtés arbitrairement ñu am droit voter loolu inclusivité la ci ëpp ñëpp fan lañ bokk. déglu ma rek Pastef. voilà voilà mais ça veut pas dire que c'est Ousmane Sonko. waaw ah, Ousmane Sonko ak ay ñoñam c'est des citoyens non attends c'est des yoo xam ne yi. dañu am droit wu vote defuñu leen ci inclusivité boobu dafa am Ousmane Sonko kaam dafa am importance ci démocratie dañ ko war a jaarale yoon bu ñu ko condamné ñu xam ne dañ ko condamné mais duñ fi parax paraxee pour empêcher ko manifestement mu bokk avec de actes yoo xam ni c'est légo nga gis ko ci administration bi c'est clair. Boubacar donc attends attends excuse foofu moom wax dëgg yàlla ñun. ñëpp on est d'accord sur ça képp ku ci d'accordul bul ñëw képp ku ci d'accord te ñëw di d'accord d'accordlu dañ lay génne ci biti. Boubacar. waaw loolu moom loolu moom féete na boor. léegi li ci kanam nag rawu li bët kaa ñu parier. Boubacar. on a qu'à parier. sur le fit. <laughs> comme am nga fit rek na ñu teg.